seen temps suñu politique yi nga xam ñoo bi nga xam yàgg nañ ci nekk ak nga xam jot nañu màcc tàngoor bu bëri. asalaamaaleykum Abdou Karim. asalaamaaleykum euh, maa ngi euh, xam sa door bi fu mu jugee parce que def naa benn

dañ lay déglu ñëpp maa ngi leen di remercier bu baax a baax ci taxawaay mais xeex moom yàlla rek moo xam en tout cas dañuy xeex fekk ñi ngi mën dañuy xeex duñ ko taxaw di xeex dañ def suñu kéemtalaay di xeex ba keroog ñu am kenn cause fekk moom bu ñu taxaw fekk amuñu kenn cause incha allah. salaamaaleykum Abdou Karim maa ngi lay nuyu di nuyu aussi sama naataal bi ñu fi nekkal Ami Seck journaliste de Dakar Buzz léegi laa bëggoon xam yan imam ñoo la soutenir ba nga nekkee ci prison bi et puis aussi ba ngay génn ndax gënutoon ndax ñu ñëw taxawal aussi. gagné dégguma euh, la question bi. Mm-hmm. maam yi euh, ñi nga xamante ne ni euh, soutenir ñan ak naka lañ la soutenir et ba ngay génn ndax gënoo fekk ñëw ñu taxaw la ndax def nañu ou bien ñëw sa kër. mais taxaw nañ ma bu baax a baax taxaw nañ ma bu baax xam nga soutien d'habitude dañu bëri ñu yaakaar ni mooy li feeñ ci biir quoi am na si ñoo xam ne dañuy def dañu def Cheikh Oumar Diagne ak euh, moom ñoom ñu ngi maa ngi ñu ngi si salle bi sax ñooñu ñu dañoo créé ay comité de défense de l'environnement collectif noir l'homosexualité ànd sàmm jikko yi c'est que ñooñu lay ànd moo tax ma ni Sénégalais bu ñu nekkee rek day saaga mooy xooluñu quoi ñun ñooñu dañuy ànd tout ce qui est valeur nitu réew valeur lañ ci teg valeur tout ce qui est valeur ñi koy bokk ñi di xeex pour mu sàmm Sénégal yëpp ñun ñooñu la ñuy ànd donc ñooñu tax ñu ci xeex bu baax a baax a baax mais du ñëpp ñooy fësal ñëpp ñooy fësal xam nga am na ñoo xam dañuy nekk ci suuf am na ñoo xam ci kaw dañuy nekk di wax am ñoo ma fi nekkoon di ko lim du ngi remercié Allah imam Ali Badara Ndaw xam jàpp na si ñëpp du est-ce que combat bi soo mara sa naataango rappeur nañ la bu si ni nga bëggoon ñu taxawoon ndax taxawoon nañ la tam. waaw nga xam nga xam nga contexte bi ñu nekkoon euh, fa bëriwoon scandale coow lu nekk ñu ngi si wax am ah, ak feebar bi Covid bee xam donc su ma may chance quelque rapport wala quelque artiste rek taxawoon alhamdulilah. waaw ñu gis ne. mais am na taxaw nañu bu baax a baax a baax. ñu gis euh, One Lyrical moom dafa def vidéo sa veille sortie dafa def vidéo noo dundee sa mën a loo dundee loolu. waaw waaw One Lyrical boobu star la. star bi mag la xam nga lu tax sérieusement damay wax que ci ci kaw quoi mais bi ma ko seetaanee daa gis ne dëkk bi booy bu star la mais dama koy remercier infiniment xam nga lu tax parce que boo yooyu ñoom dañu instant dañuy téye benn benn benn geste benn bu am doole ci bopp ñoom bu ñu góorgóorloo boo yooyu ba xale yi nga xam ñoo di bàyyi xel intérêt Sénégal ak xeex yi nga xam mooy Sénégal loolu tam donc kon damay naan message di ko remercier aussi mais commencé ñu mën a defal ci Sénégal

ñu xool fan moo lan moo tax ba léegi mu nekk ci problème lu tax à chaque fois lu tax lu tax à chaque fois ñuy tourner autour rek quoi c'est la tax parce que Sénégal am na Cheikh Anta Diop borom xam la Sénégal am na sëriñ yu mag a mag ay nitu diine lañ Sénégal bu léegi nii ñi gëm yàlla ragal ko ñoo yoroo ko pouvoir chrétien bu ragal ko ragal ko ragal yàlla ragal diine jàkkaarloo caisse noire xam ne lii al askanam bañ dindi caisse noire teg ragal yàlla di xool argent contribuable xam ne lii alalu mbooloo la ragal ko la loolu iman moo koy def ci mooy ragal yàlla li ko waral mooy mu nekk koo xam ne day waat ci alxuraan fekk amul président bu waat ci alxuraan wala ñu waat ci biir chrétien wala musulman dañ ko amul mënuñu xaar du ma nekk ci détail yooyu li ñuy jooy li ñuy jooy duñ si jug mukk duñ jug ci courant duñ jug ci ay détournement duñ jug ci ay enrichissement enrichissement illicite yi ñuy waxal duñ ci pétrole pétrole bi ñuy partagé duñ ci jug li tura nek premier nek premier ministre jamonoy Abdoulaye Wade Abdoulaye Daouda Diallo moo nekkoon euh, impôt yi demal la nekkoon waaw fa la nekkoon coono la si vous vous rappelez bu fekkee ay journaliste ngeen yéen xam ngeen fi ma li may wax dem nañ ñen xol lan lay coono rek da fi indi woon ndax Abdoulaye Daouda Diallo ko joxoon Macky Sall ba mu indi fi coono rek loolu ñu ne fam ci ci ci internet donc je pense que affaire yag na quoi du tay te décret yi nga xam ne mooy joxe suuf yi aussi président moo koy signé tay demal ci beneen bi fii nga xol rek ginaaw euh, restaurant bu Dresde yi ci ginnaaw rek nga xool euh, famille Faye fay ñaata kër kër boo xam ne angle ba angle lañ fa donc lolu pour man pour man wax ci perte la quoi perte temps nañ xol fexe am nit yu baax ñu tag leen ci bopp réew mi ñoo xam dañuy jub borom loxo yu set ñu jéem ko gérer quoi c'est très important donc lolu moo am solo quoi. Thank you.

ànd foofu taxaw ñoom muy la en masse dimbali Sénégal taxaw il faut que taxaw Sénégal le combat continue wasalaam wasalaam ala rasulullah jërë ngeen jëf